billaahi wallaahi wa taalaahi Macky Sall mooy xool maanaam ñun xajatuñu fii ñun palais rek lañ mën a dem bu ruxloo fa ci ci biir armeel yi moom mooy xool li ko li mu bëgg ñu def ci barki Serigne Touba. ñun kenn duñu tànnaat président ñun ñoo tànnaat suñu bopp te ñun Ousmane Sonko la ñu bëgg a samp mu neex Ibou Ndafa mu nagari ko moom ak ay ministres am ñoo xam mais incha allah xamuñu fu ñuy jaade xanaa xanaa Sénégal président ñun ñoo tànn suñu bopp te ñun Ousmane Sonko la ñu bëgg a samp mu neex Ibou Ndafa mu nagalil ko moom ak ay ministre ñoo xam mais incha allah xamuñu fu ñuy jaade xanaa xanaa Sénégal jeex mais Sonko incha allah rabbi kanam borom ñun jeunesse bi daañu ko taxaw daañu ko xeexal ba géej gi far waaw. man fan nga jógee. benn barak laa jógee ab benn barak laa jógee depuis 11h fi. o 11 mars bi Macky Sall bu dee bëgg nga jàmm ak ay milisam na lijjanti suñu milliards ak suñu milliards yi nga xam te gën a am solo na lijjanti sécurité dëkk bi agression bi te mu liggéey liggéey suñu dëkk bi moo gën muy topp benn leader boo xam ne ndaw ñi dañoo am yaakaar ci moom mu ne pour intérêt personnel kii naa ko jaar ci ay affaire de mœurs pour liquider ko bu dee tedd di jënt ñun jëntuñu ñun dañ pare nañu

li ñu war a wax mooy Macky Sall su gisee lii na dellu gannaaw xam na ñun dañoo pare te ah, wallaahi ñu ne moom ba 6 mois su bëggee at di ko dese ci mandaawam. waa tey tey bii tey bii loo ko gisee tey bii nañu libéré nañu libéré. on est des cadavres ambulants on est des cadavres ambulants. Macky Sall na war a xam ne su paree benn pare nañ fukk kenn yónni wu ñu dañaa ñëw pour diis askan bi laala ñun ñuy dugg fii nii Kër Massar fii am na ñoo xam ne démb sax dañ fi fanaan dañ fi fanaan laala fii sama ñëwee démb sa yaram day daw Sénégal dafa war a soppi tànkam foog fii changé dama bëgg nga xam ne ñun xale yi dañoo pare ñu ñëw fii kenn fayu leen kenn fayu leen ci yow ñu kenn fayu leen dañaa engagé dañaa engagé Macky Sall na dañaa engagé affaire yi Sonko rek barke Rasulullah Sonko rek Kër Massar Sonko fi war foo jógee ah Kër Massar. Eh. waa mbokk internet Sénégal gis ngeen ko nii méga meeting Ousmane Sonko fii ci Kër masaar gis ngeen jeunes yi sont déterminés eh, di xaar seen leader fii nga xam ne dina fi teew d'un moment à l'autre ñu ngi fii tey Kër Massar tey ku sànni mbatt mu tak gis ngeen ko xale yi nii sont déterminés waaw. ci Sénégal Sonko mooy suñu président 2024 incha allah rabi ñu nag maam ba 2034 mu am deux mandats xajal keneen mu ñëw ñu fal beneen patriote incha allah rabi ñu nag Sonko ba 2024 maa ngi jógee ba yëmbal. ko ba 2050. yëmbal laa jógee pour ñëw uniquement pour boutique bi rek. Ah. c'est la première fois ma ñëw taw ci boutique maa bi Sonko lañ wax. Sonko duñ ko bàyyi benn Macky Sall moo koy liggéey xam na ñun Sonko lañ wax Sonko day nekk candidat 2024 incha allah rabbi kenn mënuñu ci dara. candidat nii par force lay doon incha allah booy jeexalee demal Macky a xam dafay bu jeexal da ngay dem. waaw Sonko moom lañ yaakaar waaw. Sonko dëgg yàlla ñu ko xeex ba 2024 bu soobu yàlla Sonko kenn mu nga tëral nekk président bu soobu yàlla. waa sëñ bi waaw. on est avec Sonko jusqu'à 2024 bon je suis d'accord avec les mobilisations d'accord naa mobilisation bi engagement yi bi jeunesse bi am pour seen leader yal yàlla motali seen yéene parce que Sénégal dafa metti dëkk la boo xamante ñu dañoo am yaakaar si Ousmane mais bu ñu ko xañ nañu bàyyi ak suñu Ousmane ñun bu ñu nu mu Ousmane amee baax na ñun Ousmane lañu am moom la ñu àndal. gis nga man maa ngi jóge ba Thiès dama bàyyi sama programme yëpp juste pour ñëw assister si mobilisation bi mais d' accord naa si engagement yi détermination bi bon jeunesse bi nañu am yaakaar ba pare focus 2024 incha allah yàlla baax na. Thiès nga jógee ban heure fi nekk. man bon juste depuis 9h ba léegi jusqu'à présent maa ngi fi dama teel a ñëw quoi ndax parce que programme bi daf ndax parce que dama yàgg a topp Ousmane ndax parce que bon dama gis ni projet bi mu tegal dafa solide te li mu wax xel da ko mën a nangu moo tax après bon ba ko dégloo ma xam ne lii nii ma topp si topp si ba jusqu'à présent am si yaakaar dem ba heure bii nii ñu bëgg ñoo yóbbu projet projet bi moom j'espère que mooy bu ñëwee mooy c'est élimination mais bu doon moom la du ma dem projet mais seen leader moom moo sàkk woon dem a leeral projet bi projet bi ni ñu ko bu fekkee noonu la war a boo boo leader bi dina mën a dem mais quant li ñu ko waxee noonu parce que loolu mënul nekk loolu c'est élimination mooy day dem rek mooy rey nañ ko moom bu àggoon tey jii nii moom leer na ni moom duñ ko éliminer ndax parce que fi ñu jaaree Khalifa Sall fa Karim j'espère que moom Ousmane xam na ni fa lañ ko bëgg a yaarale moo tax ñun nag ñu mobiliser ko bul dem procès résistance lay taxaw. mais bu demul bu demul procès naka la affaire yi di leere non mais parce que na leer ba ñëpp xam nañ monde vont réveiller ñëpp yeewu nañu instant bii nii kenn doonatu seer Sénégal ñëpp xam nañ ni affaire bi c'est politique si vous êtes politique nag bon moom du d'accord bu fekkoon dafa d'accord si ni dañ koy yóbbu projet te ko si yoon mais Sénégal ñëpp xam nañ ni justice amatul fi c'est injustice totale ñun ñëpp dañ koy dund man souffrir naa injustice boo xam ni man leer ni lii Sénégal bu réew mi dong dong la am ci Sénégal dong la injustice am mais loolu dañ ko war a xeex taxaw pour xeex injustice mu parce que Ousmane j'espère que bu ñëwee ñun xam nañ ni ñun ñëpp am nañ yaakaar si moom yal yàlla mottali yéene bi kontaan naa grand si yow merci beaucoup. s'il vous plaît waaw gis ngeen ko noonu Cheikh Bara Ndiaye muy dugg si noonu gis ngeen ko mu ngi nii di waxtaan ak chef protocole Ousmane Sonko gi nga xam ne nijaayam la ñu ngi nii discuter je crois que dañuy discuter ci ne yéegam du yéeg waaw. voilà gis ngeen ko noonu. Cheikh Bara Ndiaye mooy yéeg noonu. Cheikh Bara Ndiaye mooy ak mooy nuy wante noon ak responsable Pastef yi waaw maa ngi seen Lansana Gagny Sakho nga xam ne moo nekkoon ex DG Lonas mu rejoindre Pastef mu ngi noon toog dignitaires yi Pastef yaa ngi nii ñëpp toog Cheikh Bara Ndiaye ngi nii gis ngeen ko Cheikh Bara Ndiaye mu ngi nii na jeex na jeex na Cheikh Bara ngi noonu waa Cheikh Bara Cheikh Bara Ndiaye mu ngi mel ni mbërëm lamb Bara ngay ndamu mu ngi mel lamb nee na ko rey ko ko sëñ Baara Ndiaye borom kenn moom kuy laajte da ngaa gisul sëñ Baara Ndiaye yàlla na ko yàlla defal jàmm réew mi li ñu noote dañ koy bàyyi force kenn ñu néew doole kuñ nar a néew doole ñu jëflante ak yow bakka solaay jaajëf daf mu dëpp parce lii malgré ñun ne la ngay jàppale Bassirou ngeen dem ci ginnaaw bañ leen ñu mën a bàyyi président Macky parce que nee naa war na taxaw xaar. kon Moussa nuyu nañ la. ngeen defal waa ji gën a doole bi doole bi gën a rafet su ko defee magu tas Pastef yaa ngi noonu taxaw ma ne ko magi Pastef yaa ngi noonu ñoo toog noonu di xaar Ousmane Sonko ñëw d'un tey daal parti bi Pastef wane na démonstration de force xool sa sa dañuy defar ba mu baax incha allah sécurité bi ngeen ne soxna yi defar nañ ba mu baax. salaamaaleykum soxna yi nuyu naa leen. ñu ngi lay fay bu baax baax. waaw tey mobilisation bi ngeen def Kër masaar tey euh, lan ngeen ci mën a wax. kontaan rek xam nga nga woote wuy sila dafa neex ñu ngi sant population sénégalais bi yëpp xam ne nu ñu pro président Sonko dénkee boppam bu ñëwee fii dina xam ne jënk na ay nit ñu gore nit ñu ko gëm nit ñi ko bëgg Ousmane Sonko fu mu pikirooroo ñun dañuy dee duñ sax naan garab amuñu lu dul moom te duñu nangu dara kenn di ko def lu dul noonu ñu toog di setaan Sonko bu tëddee na nelaw nañu xool mbooloo mi lii lancement la rek film bu ñëwagul bu ñu woo ci nguuxum soow nañ bàyyi lépp sedd àdduna am solo Sénégal fii dafa am ñu fi tëdd def fi ay ñaan Sénégal baax rek moo moo ñu war def lu baax rek moo ñu war yéeneente jàmm rek moo ñu laal waaye lu ñaaw xaju fi ku xamul ndëgëm di nga yeewoo ak suba waroo fexal sa jàmm lenn wala nga di ko yéene dara loolu rek laa amoon lu may wax di waxaat suñu état Sénégal bi président Macky Sall yaay suñu président yaa njaboote Sénégal gi yëpp ibil say bët nga xool ñi lay bëgg dugal ci kàmba bul ko nangu. ñun ñooy population bi ñun ñoo la faloon bala ngaa jàll nag ci Ousmane Sonko dang ñuy rey ba pare jigéen ñi ñooy porte combat bi mais pas góor ñi. ñu ñëw ñu ñëw ci mobilisation bi gis nañ ne Ousmane Sonko euh, depuis élection yi ba léegi élection législative passée mu ngi door a am mobilisation d'envergure organisation bi ni mel lan nga mën a wax tey parce que dafa mel ni région yëpp ñu ngi fi. lii du dara pour passeport patriote yi lii nii mobilisation. yéen xam ngeen ni ñun ñoo moom yéen xam ngeen ni ñun patriotes yi bu ñu songee dañuy daan duñu ay ragal de man saay lu may wax rek Sonko nay bëgg rek ñuy def. est-ce que kenn dañuy wane suñu bopp dañuy wane lu Sonko am Sonko jeunesse bi yëpp ne nañ moom la. du ñu nangu kenn di ko faagaagal. asalaamaaleykum sëñ bi na ngeen def. ñoo ngi fi rek. yéen a ngi fi depuis quand. waaw depuis démb. depuis fan ngeen jógee. man maa ngi ñëw ngir Sonko rek Sonko moo ko jaral. billaahi wallaahi. sëñ ah fan nga jógee. man Kër Masar laa dëkk. Kër Masar Sud. ñu ngi fi depuis ci Fajara depuis 10 heures suba si ba léegi ñu ngi fi toog di xaar voilà donc euh, du kontaan rek mbégte rek. waaw parce que lu ñu gis fii nii nii moom lii la ñuy naan démonstration de force quoi bul laal bu jege voilà donc bu ñu bëggee jàmm bu ñu laal bu ñu jege quoi loolu kase la yéen ñu ñaanal jàmm ñëpp ñëpp ñib si si jàmm voilà que la fête sëñ bi nuyu naa la. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. waa man la moodu sek maa ngi bokk euh, Pastef section marque bu Italie maanaam Italie laa jóge ba fii di wax ne ginaaw bi ñu sante yàlla ak yonente beeg Serigne Touba ak suñu ñaari waajur ak Seydina Ousmane ko mu sell mi ñun fii xajatuñ fi ñun ñun xajatuñ fi ñun fen rek lañ xaj Macky nag mooy xool li bëgg ñun ñun ci biir armeel yi lañ xaj wala biir palais bi loolu nag moom Macky Sall mooy xool li mu bëgg mu mu décidé. billaahi wallaahi wa taalaahi man bi may génn damaa tàggu sama waa kër yëpp ne leen maa ngi dem bu leen ma sóoraale nag ndax Ousmane Sonko mais day tàggu waa këram di dem sóoraale ne waa këram mun naa dem du ma ñëwaat. billaahi wallaahi wa taalaahi Macky Sall mooy xool maanaam ñun xajatuñu fii. ñun palais rek lañ mën a dem bu ruxloo fa ci biir armeel yi moom mooy xool li ko li mu ñu def ci barki Serigne Touba. waaw. sëñ bi nuyu naa waaw maa ngi lay fay. mi naka la. waaw Goro Faye la Goro Faye. kan nga jógee maa ngi dëkk Kër waaw min na waaw gis nga rek sant yàlla rek. wax dëgg yàlla di ñaan yàlla ñi fi ñëw ñëpp yàlla na ci jàmm. képp ku fi ñëw tamit tànk yi fi ñëw suñu borom fay law yiw te lépp liñ bëgg suñ président Ousmane Sonko borom defal ñu ko wax dëgg yàlla lii rek dal xel quoi dal xel nan ñaan yàlla rek liñ bëgg ñun ñëpp suñu borom defal nañu ko yàlla na ko suñu borom sàmm te aar ko te lépp lu waa réew mi am ci moom muy yaakaar suñu borom defal ko ko wax dëgg yàlla kontaan nañ trop trop trop gis nañ mbooloo wax dëgg yàlla lii moom Ousmane Sonko rek moo ko mën am fii wax dëgg yàlla te kenn fayu leen man depuis suba ba léegi lekku ma naanu ma maa ngi fii wax dëgg yàlla bari naa fi morom tamit aussi di ñaan yàlla jàmm ci réew mi madame nuyu naa la man lay fay man Joojo Mbooj laa tudd man maa ngi jógee Mbaaw waaw man si suba ah kontaan rek kontaan fii dafa ndaw sax mais konoon bu doon stade non day fees dell aéroport fee euh, nu mu tudd Blaise Diagne day fees dell ñun Sonko moo ñu ko jaral ñun mosuñoo dugg si politique mosuñoo dugg si politique mais dañuy liggéey di liggéey dans l'ombre di massifier mu jaral ñu suñu xaalis jaral ñu suñu temps jaral ñu suñu wifi ndax ak internet sax donné doyatul lépp Macky Sall kii moo ñu ko jaral Ousmane Sonko bugg Macky Sall jóge fii ñu remplacer ko Ousmane Sonko liggéeyal suñuy doom ëllëg parce que ñun sonn nañ ba pare dara bi fin du mois mu jëriñ la dara loo am yaa koy bokk ak say mbokk parce que dëkk bi lépp a lépp a métti mënoo santi sa yow am nga dara léegi nag loolu dafi war a jógee ñun on attend rien ay post ak yooyu xaar yi xam lu ñuy xaar un lendemain meilleur sa lendemain meilleur la suñuy doom suñuy sët ñu bénéficié ci parce que am nañ ay ressources ah am na fi de mais dañ ko gisul ñun ñun baadoolo yi gisuñ ko et c'est pas normal nous sommes des patriotes fii suñu la Sénégal da fi war gis sa bopp sa doom gis fi sa bopp ya sa yaay gis fi sa bopp sa papa gis fi sa bopp voilà donc moo tax ñu ñëw fii nag ci naaj bu tàng bi añ sax defuñ ko waaw Sonko yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla defal dañuy jóg fajar du julli di ko ñaanal moom la ñuy njëkk a ñaanal bala ñoo ñaanal suñuy njaboot te yàlla dina ko defal jàmm bu neexee yàlla si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma li ma gis fii dama gis ne oto yi dañoo grève ma gis ne ñu jógee ci région yi mobilisation mi new dal nii yéen ci fan ngeen dugg pour ñëw fi ñun oto dañoo pande waaye dañoo dem defariwaat suñu oto ñëwaat teg ko si yoon bi mu jaral ñu lépp nag bu jaroon dox sax dañuy dox si barki Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaw mu jaral ñu ko nag man na Jojo Mbodj di ko xeexal ci TikTok bi du ko xeexal si statut yi di ko xeexal partout di ko massifier di ko def dans l'ombre nag waaw. soxna si nuy naa la. maa ngi fay. fan nga jóge yow. ñun yëmbal lañ jóge la. Marème Diop. Ousmane Sonko taal bu yàlla taal la loolu suñu borom moo ko def. ndax dafa ñëw ci réew mi indi indi loo xamante ni ñun mësuñu koo gis mu doon koo xam ne nag moom ñun moom la ànd àndal luñ ci am jël kaso moo am ak bàmmeel ak pale ñun buñ ci am rek baax na mais ñun ñu ngi ak Ousmane Sonko. yaa booy nuyu naa la. fay naa la. tur la. Ami Diallo. booy fan nga jógee ñëw ci. ma laay yoof maire patriote waaw di wax rek non à la troisième candidature incha allah Ousmane Sonko président 2024 Macky out out out. yàlla waaw maa lay fay sëñ bi man maa ngi tudd Yaay Mbaye Fall. nan kontaan ci kontaan ci macha allah bettu ma nag tellement que dama xam sénégalais yi ni président Ousmane Sonko mel ci xelu xolu sénégalais yi. kon lu mu woote rek xalaa man ma bett ma feesaay bi mu mel nii vraiment xamoon naa ne nii lay mel parce que Ousmane Sonko moom la Sénégal ay bëgg moom lañu yaakaar aussi yaakaar de la jeunesse bi yaakaar ko yaakaar goo xam ne yàlla bu seen yaakaar tas waaw te dem dañoo pare nag muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen muy maw muy mag muy ndaw sëñ bi muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen nous sommes déterminés déterminé ñu détermination bi ñu ànd sax ah, ñu ko xam fas yéene taxaw nag jàppale suñu président Ousmane Sonko ba nga xam ne kenn du ko laal bañu nu si dara yóbbu ko nag mu nekk président nag de la république du Sénégal nag mooy mooy suñu président moom lañ considéré comme notre président loolu rek lañ bëgg sëñ bi. incha allah les 60 ans et plus rek ñoo fi toog. waaw magi Pastef nga gis fii yëpp. nous avons travaillé pendant 35 ans. jël suñu retraite mais xale yi la ñu yërëm xale yi ku juróon yërëm leen li xaar mbay ma jaaga di wax moo am xale yi la ñu yërëm moo ñu tax a génn toog fii jaamu yàlla la ñu nekk lii jiyaat la dañuy jaamu yàlla dañuy jaamu yàlla nañu abal ngir yàlla ñu defaraat suñu dëkk waaw jël suñu indépendance économique sociale culturelle yàlla baax na ñii seetaan nag nañu moytu ku seetaan rek yaa ngi yaa ngi seetaan parce que mars bu ñu bàyyi woon rek affaire bi yeggoon na bu yàgg jërë ngeen jëf. waaw. bon man maay Serigne Saliou di chargé des affaires extérieures magu Pastef département de Kër Massar bon man li may wax mooy ñun mag ñi nee nañ benn slogan la ñu am léegi mooy Ousmane Sonko par force Ousmane Sonko par force léegi slogan boobu mooy suñ slogan. léegi du lu ñuy ñaan du lu ñuy négocier mais lu ñuy arraché la. procès bi nga xamante ne nii tey mu ngi mu ngi nekk ci kanam. procès bi Ousmane Sonko du dem way laa suy dem su ñuy néew lay jaar pour muy dem loolu moom dañ koy signé fii balaa ñuy bouger incha allahu rabbi. waa procès bu jaar yoon la wax mais procès bi ku gis procédure bi ni mu demee nga xam ne tout a été truqué ndax. Euh, su fekkoon jaar na ci yoon noolu ya la ñuy def mais pas ñu forcer affaire yi ndax yaakaar naa kuñ fi mos a tëj ci viol procès verbal bi day jaar yoon ensuite euh, certificat médical bi docteur bi di délivré moo lay libéré mais cette fois-ci tel n'est pas le cas. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah waa di leen wax di kontaan ci seen teewaay te di leen wax ne leen ñii fi toog ñii ñoom ñooy magu Pastef yi ñuy ay kilifa yu mat kilifa nag. bon damay dégg ci réseaux sociaux yi aussi ñu naan na kilifa yi artu te ku artuwul di nga àtte ñun sax ñun jeunes yi actuellement soxlaatuñ kenn wax de nan ñu bàyyi ñun ñu ngi dem ak sunu sago xam nañ fu ñuy teg san sunu tànk xam nañ li ni li fi ñu jëm xam nañ fu xam nañ fu fu ñuy fi ñu nar a yegg si incha allah te nee nan mag ñëpp leen rek lañ leen sant nañ toog yor seen kurus di ñu ñaanal leneen li ci des action bi ñun dinañ ko liggéey. te incha allahu rabi 2024 Ousmane Sonko lu koy teree falu fii ci Sénégal gisuñu ko te loolu bis bu ko yàlla dogalee incha allah la xam ne Sénégal ndeke valeur yu am doolee ngi fi te loolu bu amul man Mbaye fal carte d'identité laa séq ak Sénégal dootuma fi tegati tànk jërëjëf. góor gi ñu ngi lay. maa leen di fay. gis la sa teewaay. ah man li may indi fii Ousmane Sonko moo tax ma ñëw man demal liggéey administration ba jël sama retraite gis projet boo xam ne c'est le projet qui peut sortir du Sénégal dans le gouffre qu'il looloo ma ci dugal gis aussi injustice boo xam ne mosuma ko gis ci àdduna un procès boo xam ne Ousmane Sonko dañ ko décharger sur tout le plan sa décharge la gars yi jël lépp dugal ci poubelle bi ne daal il faut ñu juger Ousmane Sonko. mais moom aussi waxoon na dañuy bëgg na tamit ñu dem procès pour que affaire bi. procès wax na ko mais procès bu jaar yoon. procès bu jaar yoon ñun duñ ci dem Ousmane du dem on fera un boucle il va pas partir. moi je suis un ancien ah bon 37 ans d'armée je l'ai tamit bu demul dina créer li nga xamante ne nii mooy problème ci dëkk bi parce que ñëpp ñu ngi wax ne dëkk bi dina tàkk. ah ñun de yéene bëgguñu loolu ñun daal bu ñu bàyyee ñu dem élection normalement dara du am mais nag nit ki soo koy pousse di ko pousse di ko pousse ba mu sës ci mur bi mais attention il va foncer sur ma ne les jeunes là sax ñun dañ leen ne nañu fett ci ginnaaw léegi ñun ñooy jël le devant nous waxatuñu xale yi xale yi nañu topp suñu ginnaaw dégg naa suma doom bi di naan nañu toog di ñaan non duñu yem ci ñaan rek on sera au devant de l'affaire voilà merci beaucoup salaamaaleykum ok salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Dóor bi ñu ngi lay nuyu. ah. ma ne ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. tey da wuy si Ousmane waaw parce que ñun dañu di ay mag suñu wàllu wéy mais dañuy jur ay doom ñu war tekki te ñii nekk fi sàcc suñu milliards duñ tax suñu doom tekki ñii kii Ousmane Sonko mi la am ci moom histoire moom la am yaakaar kon bëgg nañu mu agsi ak jàmm ci barke yonent bi. waaw loolu rek laa amal lu ma ci wax. mais tey ku ne xam na ne Ousmane Sonko procès bi nga xamante ne nii tey war na fa dem euh, moom mi nga xamante ne nii tey moom mooy ndey bi léegi sàkk woon na ci tey bu taxawee ne nu dem est-ce que du taal dëkk bi. mu du taal. dëkk bi. bu taxawee ne du dem non du du taal dëkk bi bu ñun dañuy taxaw li ñu taxawee rek bu boobaa ni ñu taxawee dañuy taxawee rek fu lu mu wax rek ñu def ko su demee wuy jiit dañuy taxaw incha allah bañ ñu ci dara. waaw fay nañ la. tey ngeen en français ou en, en qu'est-ce que vous voulez. ok moi je m'exprime mieux en français alors donc nous voici aujourd'hui au méga au organisé par PASTEF PASTEF les patriotes du Sénégal en guise de l'investiture sans embâche du président Ousmane Sonko président de PASTEF voilà. Il n'y a pas d'embâche, c'est clair. Ousmane, Soro, euh, Ousmane, Sonko en 2024 sera le cinquième président de la République du Sénégal. Et ce sera dès le premier tour. Vous le voyez, les jeunes sont là, les femmes sont là. Nous, les vieux, nous sommes ici. les, les voici, les personnes du troisième âge. Ils sont là et ils sont tous prêts pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ousmane Sonko, Tchakaou, Tchakanam. Merci. am. pare bare nañu ah bare nañu ah ñi nga xam ne ñoo fi nekk lépp lu mu leen jaral jaral nañ lu ko raw ñun xam nañ ne ñoom ay sàcc lañ parce que ce sont des criminels vraiment c'est des criminels lu toll ni feebar Covid ñu confirmer nit vraiment ñu jël xaalis bi du ko séddoo moom vraiment ce sont des criminels on nous on veut vraiment des hommes sains ay nit ñu baax la ñu baax ay nit ñu baax la ñu bëgg ku mel ni Ousmane Sonko il jeune ñu dem bàyyi leen fi kon nag génération doo boo ko demee ay xale ñoo ko war a yar on a confiance à Ousmane Sonko Macky Sall na jël ay bagages am ak ñu mu àndal ñu dem baalu ñu leen nag bàyyi nañ leen ak yàlla yàlla dina dina leen fay voilà. Euh, samay doom na ngeen def li ñuy wax dañu bëgg àddina dégg ko xoolal suñuy at suñu ñu à 87 ans àll kan ëttu magu Pastef président Senghor ne l'a jamais réalisé. Abdou Diouf n'en a jamais pensé. Abdoulaye Wade a été élu par des jeunes. Macky Sall n'a pas gagné, c'est Abdoulaye qui a perdu. Ah, très bien. Est-ce que vous me comprenez mmh. n'a pas gagné, c'est Abdoulaye qui a perdu. il qu'il n'a pas a, il a eu les Parce que c'est Abdoulaye Wade qui a mené la politique sénégalaise autrement. Et on l'a sanctionné à l'avantage de Macky Donc il n'a pas gagné, c'est Abdoulaye qui a perdu. Maintenant, regardez-nous. Chacun d'entre nous a plus de 110 ans. Nous avons compris, à partir du, de, projet de Ousmane Sonko, ce que Senghor n'osait pas dire, ce qu'Abdou Diouf n'osait pas dire, ce qu'Ablad n'avait pas dire, n'osait pas dire. Macky Sall est le, est le préfet des de France et des Occidentaux. Et nous voulons restaurer ce pays-là avec un pays souverain, indépendant, productif, autonomie financière, alimentaire. Et nous ne pensons qu'à Ousmane Sonko avec son projet. C'est ce qui nous a amenés ici. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir. Que les Sénégalais nous comprennent. À l'époque, on nous disait que à l'époque, ñiy dem seeni doom duñ dem ñun dañuy ñëw ñun suñuy ak kanam suñuy sët suñuy doom suñuy rak wan leen ne lii suy dee nit ñoo ci jëkk lii laa bëggoon wax du projet bu ñuy foyee du projet bu ñuy caaxaane ci nangoo de ku ma ne ci nangoo dee nag ñu nangu la cee rey je Imaam Seck ñu ngi lay nuyu. ñu ngi ak mobilisation bi nga xam ne waa Pastef réussir nañ ko. ah yàlla dafa dogal sama teewaay man maa ngi tudd Imaam Seck maa ngi bokk maa ngi dëgg yooyu commune Ndiarème Limamoulaye yàlla dogal dafa am Sénégal dafa am fu mu toll ñun ay kilifa la ñu mosunoo yëngu si politique mais bu ñu dem ba gis koo xamante ne ku sell ku baax ku jub koo xamante ne dafa sacrifice dundam pour Afrique pour Sénégal kooku kilifa diine imam kër boo mën di am. da nga war a nekk si ginnaaw ah jàppale ko man nag yëkkati naa sama kàddu maanaam ñu menacé ma ma def sama plainte doytul dem naa Walf Fadjri wax ko fa waaye loolu du tax ma dellu ginnaaw parce que kooku sama yëgla la waaw ñu ay ñaari xale yor kat kat jeg jóge jumaa ma def ma def waxtaan pare bayaan may ñëw ba sama kër ñu ñëw ba sama tànk daan may saaga jaar fu bon ni ma yow da nga war a yem si yàlla nee na yonent bi nee na nga naan da ngay jàppale Ousmane Sonko ba numéro maanaam dina la rey tal la ma def sama plainte doyul dem naa wala fajri waaye ñun suñu bakkan mi ngi ci loxol yàlla loolu suñu engagement la Ousmane Sonko la ñu gëm ñun ñoo jël suñu responsabilité parce que xam naa ne suñu avenir doom suñu avenir njaboot loolu la ñuy sàmm moo tax ñu jël suñu de kon président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla sàmm te 2024 Macky Sall dem ak jàmm abal suñu réew parce que Sénégal li fi nekk dafa ëpp. injustice bi néewal li ñu doole def loo neex jël suñu alal di ko saax saaxi koo xam ne dafa ñëw. fa tabaarakallaahu ñu koy comparé comme Thomas Sankara di ko comparé comme Nelson Mandela di ko comparé comme Lumumba kon ku mel noonu maanaam mooy Canada Afrique mooy sunu yaakaar tey mooy sunu yaakaar ëllëg dañoo yor njaboot te bëgg nañu ëllëg sunu njaboot ñëw fekk Sénégal gu baax Sénégal goxam day set Sénégal goo xam ne fa tabaarakallaahu day rafet loolu mu nekk sunu yëg-yëg. moo tax ñu jël suñu responsabilité ànd président Ousmane Sonko parce que xam nañ ni wax dëgg yàlla gis-gisam Sénégal gis-gis bu sori la boo xamante ne bu ñu ko joxee réew mi mën na ko doxal ci jàmm ak salaam ak sutura. Euh, en tant que imam lislaam day rime avec jàmm ban message ngay lancé parce que xam nañ ne fi mu nekk nii dëkk bi fi mu toll mbir yi wax dëgg yàlla euh, lëndam na trop ci fi ñu jëm en tant que imam ban message ngay lancé aux Sénégalais waa en tant que imam en message bi may lancé mooy Sénégal dafa am nu muy doxee dañoo jàpp ni maanaam nitu diine da nga war a nekk si da nga war a nekk si jàkka ji rek da war a nekk si jàkka allahu akbar salaamaaleykum te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daa def politique mais da ko rafetaloon ba pare na rafetal bi mu jël engagement ci pos pas ci ngëm-ngëm te bu ñu xoolee yonent yàlla Youssouf maanaam nekk na ministre de l'économie et de finance en tant que yonent ma anam bi mu koy laajee pour ñu jox ko ko xam lu wax. dane am na ñetti qualité ñu ne ko lan mu ne benn bi maanaam ku jublaa kon mën naa ko yor beneen bi mu ne ko mën leen ku mën a liggéey laa beneen bi mën leen am na expérience te loolu gis nañ ko si président Ousmane Sonko kon imaam yëpp kilifa diine yi ustaas yi góor jigéen mag ak ndaw fa tabarakallahu ñu xam ni mais islam bañul bañul nga gis koo xamante dafa nekk ci réew nekk om politique am vision bu baax maanaam pour askan wi fa tabaarakalla nga topp si ginnaaw kon daal ñu ngi éviter imam yëpp éviter oustaz yëpp éviter kilifa yëpp ñu topp si ginnaaw Ousmane Sonko jàppale ko 2024 fa tabaarakalla mu mën a soppi xar kanamu Sénégal message boobu laa doon laaj si imam incha allah. merci imam. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar ah, di leen wax ne tey Sonko moo ñëw Kër Massar. sonko nag mooy mooy sonko mu sell mi sonko mooy sonko bi nga xam ne képp koo xam ne kii rek tey da nga doon milité feneen sax ñëw nga fii pour sonko di di di bañ injustice moo ñu indi fii ñun waroon nañu bàyyi politique yàgg na mais on est là pour sonko sonko tey sonko suba et puis nag kenn du ko laal. Sonko kenn du ko laal ñun magu Pastef dañoo taxaw pour Sonko kenn du ko laal man looloo ma indi fii Sonko dafa nekk koo xam ne même bu sellul woon sax bëgg nañ ko waxuma la nag mu sell jeune la boo xam ne tey mu waroon def lu ko neex. mais ñu tekkal ko affaire boo xam ne bu nekkoon moom sax ñu war ko sutural ñu jàpp ko di ko diaboliser di ko def di n'importe quoi bu doon seen doom duñ ko ko def bu doon seen jarbaat duñ ko ko def nañu bàyyi Sonko Sonko ci kaw ci kanam. naka nga gisee mobilisation Pastef bi démonstration de force laa fi gis lii du mobilisation démonstration de force wane ne patriotes yi ils sont ci ginnaaw président Ousmane Sonko dara du ko xuri dara du ko laal dara du ko teree dem élection incha allah rabbi di kontaan ci moom nag ndax mënoon naa ne meeting d'investiture mais dafa ne salaamaaleykum ne damay ñëw Kër Massar damay rendre hommage à Mariama Sagna loolu ñun dañ ciy kontaan ndax suñu sœur duñu fàtte mukk ne un 6 octobre 2018 ñu yenn ñu ba suba ba ngoon jot ñuy organiser di recevoir président Ousmane Sonko guddi ay malfaiteur nekk ci lu leen neex def ko lu leen neex mënuñ ci sax jaaraat ba mu jaare fa ñàkk bakkanam loolu duñ ko fàtte mukk ñu ngi jooy Mariama Sagna ba tey te ba léegi justice amagul on demande justice pour Mariama Sagna voilà dégg ngeen ko muy Mariama Sarr ñu reyoon ko fii ci Kër Massar ci élection locale yële passé moom nag day demande justice pour Mariama Sarr waaw salaamaaleykum sëñ bi ni ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay grand. tur bi naka la. Abdoulahad Ndiaye. Abdoulahad Ndiaye ñu buggoon xam sa teewaay fii rek ci grande mobilisation Pastef bi. waaw Abdoulahad Ndiaye responsable politique Pastef Louga waaw tey dañuy ñëw ñun ñëpp fii ngir euh, fekke ci meeting bi nga xam ni Pastef moo ko organisé Pastef Kër Massar un méga meeting bu nga xam ni ñoo ngi ko def sargale ko ki nga xam ne moom la ñuy wax soxna Mariama Sagna ndax yaa trois ans ci ginnaaw 2018 dañu defoon fii ab meeting yàlla dogal bakkanam rot ci mu nekk jàmbaar joo xam ne tey dañ koy rendre hommage tey dañ koy sargal di dajaloo fii ngir wane suñu doole dajaloo fii aussi wane suñu engagement ngir xamal ko ni ko fa mu ne tey jëfam la taxoon mu engagé wu du neen xamal ko ni ko suñu yéene ak suñu pas mooy fexe ba réew mii doon réew moo xam ni justice ak yoon ak ak ak ak ak àq yelleefi doomu aadama di fi daw loolu moo moo waral suñu xare loolu moo waraloon yéeneem moom mu amoon engagement boobu tey jii nii dañoo ñëw jagale ko bis bi dajaloo ngir wane nii la taxoon moom ak ay téeméeri moroomam engagé wu ci projet bi duñ ko bàyyi mukk dinañ ko yeggale ba réew mi doon réewum jàmm dinañ ko yeggale ba réew mi doon réew nekk réewum naataange dinañ ko yeggale ba réew mi nekk réew mu nga xam ne si nii dinañu ñee fépp ci àdduna kon nag gis ngeen ni mbooloo mi mel tey ñii ñëpp dañoo wuy si ngir tatagal suñu président Ousmane Sonko gis nga jeunesse bi gis nga population Kër Massar gis nga population sax Dakaroise laay wax ñëpp a génn tey ngir xamal ni suñu bakkan la ñu teg ci projet bi tey bu ñu leeroon ni bu ñëwee fii ñun ñëpp dañuy faatu dañuy ñëw ndax suñu bakkan lañ teg ci projet bi loolu la bëgg message boobu mu dugg ci Macky Sall ak ñooñam ak képp mu àndal Abdoulaye Khad Ndiaye responsable Pastef merci jërëjëf. sëñ bi nuyu nañ la. waaw ñoo ngi lay bu baax sëñ bi. bi rek ak foo jógee. maa ngi tudd Bassirou dëkk dëkk bu ñuy wax Taïf Diop jóge foofu ñëw ba fii ci teewaay si fekk si meeting méga meeting bii ñu bëgg wax nag Sénégal yëpp nit ñëpp di ñuy dégg xam ne ñun lu dul dëgg doxuñu ci waxuñu ci te Sénégal nag nit ñu yàgg nañ fee liggéey yàgg nañoo xeex yàgg nañoo xare duñu xare nag ba am benn acquis boo xam ne du démocratie la maanaam ku ku mel ne Macky Sall mii tey bi muy ñëw fii ci réew mi ñun ñii ñoo ko yéegaloon fi mu egg ñoo ko fa jàppaloon ba mu àgg fi mu àgg tey jii nag li mu bëgg a def dañ ko bëgg a xamal ne ko lum ci bañut ñu ko ci lum ko jaral jaral nu lu ko ëpp dëgg dong ñu taxaju a jóg te dëgg gi leer nañ nañ te ñun ñëpp xam nañ ko fi ne nag ñi ngi naan wax ne wax na kilifa yi wax na kilifa yi wax ñun déglootuñ genn kilifa dañuy jël suñuy responsabilité léegi taxaw xeex xeex bi xeexal ko suñu bopp lu mu ko jaral rek jaral nañu ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax Sénégal nii rek dëkku jom la dëkku fulla la dëkku alxuraan la dëkku dëkku dëkku dëkku lislaam la kon nag bu fekkee bëggee fekk loo xamante ne bii lu jaar ci yoon dañu bëgg fee teg dañ koy koy combattre ci fànn nag waaw wasalaam. ngeen ko nii mobilisation bi ñëpp jog nañ parce que ñu ngi xaar euh, Ousmane Sonko mooy dugg ci noonu vraiment gis ngeen ko euh, waaw toutes les tranches d'âge euh, ñu ngi ci. mobilisation bi ñu ngi ci grand meeting bi nga xam ne méga meeting laa koy tuddee voilà waaw waaw waaw waaw maa ngi lay ziar bi waaw maa ngi jógee ba Thiès waaw Khoudia Mbaw madame Mbaye waaye ñu ragal ñu grève bu Ousmane Sonko ni woon dox leen ñëw ñu dox ñëw ndax ndigal la ñuy xaar te joxe na ndigal jóg leen ñu jóg kon dañoo jóg valantew def si ay sacrifice ba ñëw jaral nañu ko. mobilisation. dama ne la Macky Sall boo tëddee tey doo nelaw gëm nga ni sa baay ngi nii xam nga mag baay Ousmane Sonko mooy sa baay ko mag waay mooy sa baay nangul soo tëddee tey doo nelaw Sonko ca kaw ca karam ay boo ko laalee jigéen ñi pare nañu. gone yi pare nañu mag ñi pare nañu maire yi pare nañ ñëpp pare nañ Macky Sall soo arrière ñoo ngi ci sa kaw saa su ne daw ñu daayu. fuñuñ fuñuñ laa jóge département fuñuñ. Euh, maa ngi tudd Mansour Niang. maa ngi jóge fuñuñ commune bu ñuy wax commune de Niassène. depuis kañ euh, waaw. waaw kontaan rek di gërëm patriote yëpp di gërëm Sénégal yi ak sympathisants yi parce que boo xoolee fii yeg yeeg sympathisants yeeg. ñuy xeex injustice ñuy xeex dund bu cher bi ñëpp ñoo fi dajee société civile rappeurs yi yëpp ñu ngi fii kon tey mu ne nee wax na c'est le Sénégal en miniature moo dajee fii nii président Ousmane Sonko nag ñun dañuy wax na ñun en tant que jeunesse du parti bu ko kenn laal Ousmane Sonko bu ko kenn laal Macky Sall bu laal Ousmane Sonko laal Ousmane Sonko mooy réew mi takk na parce que ñun suñu yaakaar suñu espoir l'espoir du Sénégal l'espoir de l'Afrique duñu nangu kenn sacrifier ko Macky nag li mu bëgg mooy sacrifier tous les opposants yoo xam ne ni am nañu doole si réew mi pour moom mu nekk fi di bum di bum mi du fi amee avec Karim Wade sacrifier na ko avec Khalifa Sall mu sacrifier ko du sacrifier Ousmane Sonko réew ñu ñun ñëpp nañ lañ bëgg xëy liggéey wàcc dem marché ñëw añ jàmm lañ bëgg laana Ousmane Sonko nag jàmm jaax si réew mi ñun ñoo wax loolu ñun waa jeunesse du parti dans parti Sénégal Foundiougne Fatick Tamba Ziguinchor ñëpp a fi teew teew c'est lii lu ndaw la lu ndaw la kon li ñuy wax appel bu ñu lancé mooy kilifa diine yi ku gis lii tey xam ne c'est Sénégal ki s'est déterminé ku gis lii tey xam ne réew mi jog nañu sa pare nañu rayante si mbedd mi parce que Ousmane Sonko kenn du ko sacrifié say ñoom Macky Sall Macky Sall ak waa nguuram ak France ak tubaab bi Ousmane Sonko arrangé wu leen parce que Ousmane Sonko c'est de l'Afrique en miniature kon ñun duñu nangu même ku sacrifié lu ñu def mooy kontaan bëgg nañu si mobilisation bi sa bii c'est la c'est une première c'est le début du commencement. merci waaw sëñ bi yow. man maa ngi pare bu yaakaaree ne Sonko du laa Sonko jeunesse bi la am ak affaire affaire bi question wu nit projet la projet boo xam ne suñu bakkan yi ñun joxe nañu suñu jota sama xale yu ndaw lañu bu ñu nangoo dëddu àdduna ndax Sénégal na ñëpp xam ne affaire yi jeex na li si am solo mooy ñuy woo ñëpp ñu taxaw ne xam ne combat bi combat wu Sénégal la combat wu jeunesse bi la combat wu la te bii mooy dernier tournant boo xam ne danañ def tout ba incha allahu rabbi lii di projet Pastef bi ñu yegg rek boo mat sëkk incha allahu rabbi. waaw nee nga fan ngeen jógee. Ah, Dagana département Dagana département Dagana. waaw gis ngeen ko noonu euh, capitaine mooy lancer message parce que fii sécurité bi ni mu mel dafa yéeme. parce que ñii mu ngi wax ak ñi yëg ci kaw miir yi yëg ci kaw kaw kaw terrasse yi ne leen ngeen wàcc waaye boy yi dafa mel ni gis ngeen leen noonu dañoo bañ dégg nga ko ne la leen miir bi dëgërul wàcc leen waaye bu dafa ndànk drame drame incident euh, drame bu garaaw mën na fee am parce que li li li tegu ci kaw terrasse bi ëpp na doole te ba tax na bu yokkoo te Ousmane Sonko bu duggsee amaana mën na affaissé wu waaw pour sécurité rek. voilà waaw fii nag gis ngeen ko nii waaw sécurité bi moom euh, xaw naa sooxe parce que li fi toll ci nit ak euh, euh, garde rapproché yu ñu mobilisé fii ci enceinte am problème mais côté presse fi mu nekkee moom mën naa wax ne nekkuñ ci en sécurité voilà nekkuñ ci en sécurité parce que barrière yi ñu teg gars yi ñu ngi jéggi barrière yi di néew di sës ci presse bi waaw te loolu waa gis ngeen nii gis ngeen ko jeunesse bi jeunes yi fii dafa ëpp euh, wax dëgg yàlla gis nga li ma doon wax a ngi nii barrière bi dañ ko pousse mu daanu voilà te boo deful ndànk sax ay blessé mën nañ cee am parce que ñi ñëpp Ousmane Sonko moo leen jaral lii ànduñu seeg seen sago moo waral lii yëpp Sonko dafa war a gaaw dugg si wax li muy wax libéré nit ñi parce que bu deful ndànk rek eh, euh, sécurité bi dina déborder Ousmane Sonko dina déborder trop voilà oto yaa ngi noonu di dugg si. oto yaa ngi noonu di dugg si mais c'est inadmissible c'est c'est c'est c'est incompréhensible voilà waa gis ngeen ko noonu Ousmane Sonko alias Oscar Sierra mooy faire son entrée noonu di dugg ci grand méga meeting de Kër voilà gis ngeen ko noonu daa mel ni borom motaar bi mooy dugg si noonu dafa mel ni ci communication Ousmane Sonko la bokk parce que dafa mel ni mu ngi takk noonu ci casque bi benn GoPro pour filme yoon bi ma ne ko pour filmer yoon bi mu ngi noonu gis ngeen ko saa yi la dugg see ak moto bi waaw. xaw ndax luñ ci jublu waa gis ngeen moto bi noonu ponk la maami moto la waaw teg GoPro ci ci bopp bi waaw communication Ousmane Sonko ñi géré image ami je crois que vidéo yeeg tout ñoo dugg si noonu waa mbir moom li may ragal mooy dina déborder dina déborder dina déborder surtout tous les plans gendarmerie ngi noonu dugg si nañ gendarmerie ngi noonu dugg si nañ maa ngi leen fii door a gis ñu ngi woon ci biti ñu ngi woon ci biti mais dugg si nañ waaw je crois que dañuy def sécurité bi dugg si nañ dafa mel ni gars yi dañ leen sollicité parce que euh, ñi yore sécurité bi fii mënuñ ko mënuñ ko gérer franchement ñu ngi noonu. mbir yi daal doy na waar euh, xaw na doy waar trop parce que mobilisation bu fi nekk ak euh, le niveau de sécurité et trop bas pour accueillir Ousmane Sonko parce que ça risque de dégénérer à tout moment voilà ñaanuñ ko yàlla daal waaye gis ngeen noonu gendarmerie dugg si na je crois que dañoo ñëw pour dimbale euh, organisation bi sécurité bi voilà. waaw gis ngeen ko Ousmane Sonko ngi noonu yéeg na mu ngi noon dugg si na daf ñu échappé fiñ ko yaakaaroon ak fi mu génnee du benn waaye pour mu dugg si rek problème bu rëy la mu ngi noon di wanteek uh, waa Pastef mu ngi sol noonu en très vert ensemble. Crey vert mu ngi noonu wékkoo saal bi Ousmane Sonko alias Sera mu ngi noonu le phénomène de toute une génération Oscar Sierra mu ngi noonu di saluer di yék di ñëw di nuyu ci public bi waaw Ousmane Sonko mun naa wax ne le phénomène. Ousmane Sonko un phénomène particulier waa gis ngeen ko noonu ñu scandé slogan boobu ñun Sonko la ñu gëm mooy di wane seen amour ak seen détermination di soutenir Ousmane Sonko nekk leader charismatique nekk leader Pastef ñun Sonko la ñu gëm ñun Macky on t'avertit Sonko mu ngi ñëw ñun Sonko la ñu gëm la jeunesse sénégalaise aujourd'hui déterminée à défendre notre projet. Sonko ngi noonu gis ngeen ko mu ngi noonu Déthié Fall ànd ak Déthié Fall mu sol benn pil bu weex ak tubéy bu noir dend ak euh, Maymouna Bousso ak jante ancien CUSEMS Bara Gueye ngi noonu aw Sonko Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye dafa mel ni kuy jox victoire à Sonko mel ni ku naan ko di nga gagné 2024 yaay toog ndax mu ngi def noon ni mbër yi di def ci làmb ji yëkkati na loxoom ba pare ren di jël ren di dox gi ne daal adversaire buñ jàkkaarloog dinañ ko battre loolu lay lay signifié. waa ba léegi boo gisee lii jafe-jafe la gars yi am parce que micro yi doxul dara doxul lumière yi doxul moo tax xam naa ñu ñëw pour yëngal foule bi wan mbooloo mi ne leen mbir mi xeex baa ngi door a démarré yaakaar naa ne message biñ jàllale peuple bi euh, nu mu traité bi fi teew ak. Euh, les pacifiens comprendre nañ message bi waaw gis ngeen ko nii gis ngeen leen garde-fou yi di moins léegi ñu sedde gis ngeen pression bi ci jeunes yi di def ndax li fi nekk ci nit dafa jéggi dayoo matériel sonorisation bi ñu tiim gars yi suñ kow lañ nar a daanu si voilà fii daal boo bëggee dégg-dëgg zéro sécurité je crois que mbooloo mu mel ni ku leen organiser war nga def telle sorte que waa gis ngeen ko jeunes yaa ngi inscandé noonu damuñu procès damuñu procès loolu yaakaar naa ça veut tout dire voilà dafa mel ni daal diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr euh, jeunesse pacifienne nee nañ damuñu procès